ñu waxtaanee wàllu suuf ak yorin week yamale gi ci ngir rek indi ak dal loole kilifa yu bees yi noonu lanu ko gisee directeur urbanisme ak wàllu architecture jàpp na ni daal euh, ngir faj mbënd mi faw ñu jaare foofe mooy fexe ba restructurer euh, gox yi banlieue Ndakaaru Oumar saw lay wuyoo dañu koy déglu ak Aminata Mbacké saw ak Mar Dieng ci Ndakaaru euh, gox yi fi gën a am problème ci li ñuy wax mal urbanisation mooy goxu balier bi Pikine Guédiawaye jëm ba ab euh, côté Kër Massar ba côté Rufisque foofu la ñu gën a seetlu problème yooyu boo gisee atelier wu forum urbain national bi tey di wax ni est-ce que du restructuration ak régularisation foncière mooy régler problème wu euh, habitat non planifié euh, et loolu boo gisee ñu di ci waxtaan tey parce que moom mooy solution durable pour régler problème mu inondation yi Oumar Sow directeur urbanisme yore wàllu li nga xamante ni mooy architecture